di nuyu ci turu mouvement regroupement ànd liggéey bi yëpp di ci jiital ci nuyoo bi suñ président Cheikh Mbacke Diouf di nuyu mbooloo mi ñu àndal yëpp mouvement bi nag dara waralu ko tey pour de soutenir président Serigne Mboup ñun ay ndaw lañ yor ay taxi en ville di liggéey fii ci dëkk bi Serigne Mboup dëkk ñun doon nit ku baax di nitu daara mënuñoo def dara loolu jàppale ko bu dimanche ak jàmm ñu jël élection locale yi ko ci loxo mu jiite mairie bu Kaolack ah ah waaw ci biir loolu ci biir loolu ñu ngi remercier waa Kaolack gi yëpp ndax ku ci nekk gis nañ sa mouvement ci biir liggéey bi ndax la solution ndaw la liggéey doo nga tax a jóg chauffeur yi tamit ku ci nga xam ne na chauffeur moo yor ville Kaolack dañuy fay abonnement 4000 francs par mois liggéeykatu Jakarta yi dañuy fay par fin du mois 2000 francs te Kaolack mënuñoo am mbedd mu baax mënuñoo am tali yu baax amuñ ay lumière canalisation yi baaxul assainissement amu fi chaque nawet man mi di wax ak yow dañuy génn sin kër uti fuñ dem ba nawet bi jàll te loolu lépp loolu lépp li koy saafara mooy kenn ku ci nekk nga jël sa carte dem ca bureau de vote ya jéem a voté dugalal Serigne Mboup mu gagné 100 pour cent de commune de Kaolack. jërëjëf gars yi. fi na nii xol yëpp sedd na. ndax euh, ñi fi taxaw ñëpp ku ci nekk da nga bàyyi sa liggéey. jël soo oto def ci carburant ànd ci cortège bi soutenir président Serigne Mboup te loolu dara waralu ko loolu seen njiit président Cheikh Mbacke Diouf mi nga xam na ni lépp moom la ñi ngi ñaan yàlla nag jour élection yi ñu voté Serigne Mboup jox ko mu jëm ca kanam. ñun sëriñ boobu li tax ñu sonn ci nii ci moom daa def ci daa def ci ñun loo xam ni fii mairie Kaolack yëpp ñëpp jaar nañ fi fi ko. moo ñu mbaaral suñu mbaar mii. waaw près de deux millions bu manqué. la la ci la def te des na télé beeg courant bi. sëriñ boobu boo gisee ma sonn ci moom nii di campagne ak moom sëriñ boobu ma damaa jaar ci moom. ma dama jaar CCBM liggéey ak moom un an mois. dama xam sëriñ bu baax a baax a baax a baax te sëriñ lii ma ko yéene nii barke sëñ Fallou Mbacke sama sëriñ laa ko giñ ci sëñ Moussa Nawel Kaolack da koy jël bu soobee yàlla incha allah rabbi lañ juddoo fi lañ màggee ba day ñu day mais xar kanam Kaolack niñ ko buñ juddoo ba léegi niñ ko niñ ko xam niñ ko gisee rek noonu lañ ko xamee musul changé ñi fi jot a jaar ñëpp wax lañ fi def biñ jaaxee jeex na ay diggee di ñu nax te ñun fi ñu tol nañ foo xamante ni il est temps Kaolack changé Kaolack war na am tali yu baax Kaolack lamp yi war na leer Kaolack bu nawetee ndox mi war na fee mën a jugee ñun ay doomu Kaolack lañ Kaolack lañ am si feer fier avec Kaolack waa ñun luñ mën a amit it Kaolack lañ am man li may wax mooy waa kawlak nañ yeewu te xam ni naxaate yi bari na mais nañ xam fi ñuy teg seen tànk bu baax dimanche soreetul le jour ji nañ jog sangu ba set sañ sa lu rafet. macha allah dem woote ki nga xam ne mooy suñu leader di président Serigne Mboup ñu jox ko mairie bi ndax yaakaar lañ am ci moom.